dina la bégal ni daaru daaru yaa ko moom dina la bégal ni réew mi réew mi yaa ko moom te ñu lay bégal ni wax leen ku fi joobe maam Cerno dina la wuyu ni ee eh, ana ko bëgg maam Cerno ana ñu ko bëgg maam Cerno ana danga dëkk ci dëkk bi di doom ci dëkk bi ca xam li xew ci dëkk bi dafoo bàyyee si dëkk bi ku soxar ku bañ manco no ku oku fu mu jëm ku soxar ak mu bañ ni wax len ku soxar ak ko bañ manco no oku fu mu APD nek na fu nek ci senegal legi ndaje bu tolni bi ngeen di def bis bu yalla sak bu ma yewo ngon gu nek ma ngi ci bir Dakar ndaje yu melni la fay am wante damay wax wa Dakar di len wax ne len ak lu ngeen ma bëgg-bëgg ak lu ngeen ma teeru teeru ak lu ngeen ma dajaleel dajaleel waa daaru musi du ma leen jënd kenn ca loolu ñii di jóge fii di dem di fekkee ndaje Dakar ya ñu demee gars yi dañ leen di yëkkati di leen teg ca kaw parce que dañuy xam ne ñii ñoo yor priorité bi ci biir parti bi parce que ku àndul ak ñoom duma ànd ak yow léegi nag continuer leen ngeen dajalee parti bi nit ñi ci war a dugg si ngeen dem seeti leen indi leen boole leen ci li ngeen di def su ko defee man li ma man rek mooy lu ñu yàlla jox ñu seddoo ko ak yéen lu ma mën a def ci jàppale leen ma jàppale leen am na nag ay nit ñoo xam ne ñi ñëw nañu pour fekk si parti bi pour jàppale leen ma ciy lim soxna ciy toog fàttali leen ma turam parce que tey laa ko jëkk gis Ndeye Mariam tey laa ko jëkk gis moo tax jàppagu ma woon turam fi léegi leader yi fi nekk yëpp xool na leen mais mu ñëw tey ne ma ñi fi nekk yëpp yaa ma ci doy dama lay jàppale ji Kébémer ga ma dëkk jàppale la fii coddu moom dong dakaar du ma toog ngoon gu ma recevoirul ñaari mbootaayu jigéen part ngoon lay recevoir ana moo Gueye xaw ma Modou Gueye ngi fi nekk ne ñooy ànd di fa dem ngoon gu nekk ay par ñaari mbootaay ñetti mbootaay lay jël ñoo ngi sant yàlla parce que ñëpp ngi daw di ci suñu parti kon nag da ngeen a war a dëgëral seen parti yokk ko seeti nit ñi expliquer leen pour que ñu ñëw jàppale leen ñi ngi jëm ci élection nag yéen ñëpp président Macky Sall ràññee nañu respecté nañu parce que respect boobu ci suñu bopp la tàmbalee ñun ñoo def la tax ñu ñuy respecté danoo toog ne ko yow la ñuy jàppale di dajale suñu mbooloo mu ñuy gis tous les jours bu nu déggee yëmbal tey ëllëg mu dégg ñu teewoon jaksaaw ëllëg mu dégg ñu xurunaar ëllëg mu dégg ñu lamsaar ëllëg mu dégg ñu liberté 6 fu mu dem mbooloo nga fa am ci am na ay service de renseignement yu koy wax li ñuy def ci biir réew mi yépp parce que ñun naxuñu ko ñun duñu nax kenn buñ ne ànd nañu ak yow li ñu ànd ak yow dañ koy def ba mu mat sëkk du ñoo ngi toog di def lépp loo xam ne lii ñu ngi koy def pour wane suñu taxawaay suñu matuwaay ba tax mu respecte ñu am yaakaar ci ñun yaakaar jooju nag il faut pas que ñu tas ko mooy daaru musi gii comme ni ko Cheikh Soy Samb waxee na ngeen ci xar seen tàkkum tubéy jëli seen seen seen seen seeni i carte génne seen waa kër pour que bu ñuy wax ne yàlla fal na ko ñu bokk ñun ci ñi ëpple score ba ñu ko falee foofu la daaru musi di génne buñu ñu ñu ni commune yépp ñi ngi nekk 51% et musse na nekk 70 ba 80% quatre vingt pour ngeen fal ko président bi parce que compétition bu fa lañ toll de mooy kan mooy ëppale pourcentage pour fal président Macky Sall loolu nag pour que mu mën nekk il faut ngeen dem wote ji il faut ngeen génne seen carte dem wote parce que politique bi bàyyi leen di ko foyee politique bi mooy régler seen i problème ëllëg su ngeen bëggee seen i problème ëllëg doomu Daaru Musi yi nekk fii fexe leen ba Daaru Musi nekk paix cër yi ci war a am nag yàlla dana seet kan la ci wërsëgam nekk mu jël ko ca bu jëlee mu dikk def ko ci biir dëkk bi loolu il faut faudrait que ma expliquer leen ko muy wax bu leer nañ ca itam de leen yaatal ku ñëw di bëgg a dugg ci biir partie bi yaatal leen ko parce que li yeneen nit ñi di def di wax naan man Thierno Lo nekkoon naa ak moom diw mee bu ñëwee day jël sama place ou bien Thierno koo ko ñàkk a xam Thierno Lo rek yaay defe noonu man sama nitu démb nit buy sog a ñëw mënu koo tax ma ba ko te nit ku ñëw boo duggee soo commencé di liggéey bu cër amee dama lay jox cër ba parce que man kuy liggéey laa xam xamuma maag Thierno Lo ñoo àndoon juróomi at ca sa kër ngay tëdd doo génn doo dem fenn wate sax bu ñu waxee doo ko def doo dajale say mbooloo bu la nit ku dàqe liggéey ñëwee moom lay jël mu jiite la loolu bu ci kenn nattable fi mu toll nii boo àndoon na man juróomi at te bu may woote doo génn su ñuy wootee doo dajale say nit gisuma nga am fukki nit yuy ànd ak yow yow dooma tardeel kat su ma gisee ku mën a am ñaar téeméeri nit dama koy def politique bi changé nañ ko ci dëkk bi wax naa ko xale yi nee naa leen seet leen ñi am mbooloo ñi man di gañe loo ngeen dem bootal ma nit ñooñu ma ànd ak ñooñu yéen ñi def bureau bi ak xale yi yëngatu fii bu leen gestu di xool seen gannaaw xool leen seen kanam ngeen seet ñi ñongoo liggéey ngeen ànd ak ñoom boo liggéey su ngeen amee dara gi ngeen ñett doon ci biir kër yi ca mënuñoo dem ngeen jël ci dem fekk leen fantoo ngeen mosal leen ci waaw non loolu la parce que nekkoon nañ fi bokkoon nañ su ngeen amee du ngeen leen fàtte mais buñ leen tardeel ku leen bëgg a tardeel ba leen ko fi loolu man maa leen ko wax maa leen ne man na ma doon defee politique fii defatuma ko noonu parce que du toog am ay parti bu war a compter di samay xaalis bu élection jotee maay ëpp lu ma def xaalis sama biir parti maay ëpp xaalis ci dimbali nit ñi ku ci am sa soxla wax ma ko ma def ci sa bu élection du ngeen ma woteel loolu laa dootul def seetatuma ci dara dara dara dara kuy politique daal lay àndal léegi ku politiqueul yàgg Cerno am leen jàmm su ma la gisee nuyu la la ñu boole ma sàmm ko mais politiciens yi lay waxanteel léegi lu leer yéen ñi ma fi bàyyi yéen ñi ma fi bàyyi dama leen wax wax yu leer su ngeen ma doxalee loolu loolu la su ngeen ma doxalu loolu la ma dindi leen fi indi fi yeneen nit parce que Serigne Touba ku ci deful li ma lay def ci defoo defoo ci li may def ni xoolal di ma jéem a indil ay rafetal amatul du ma toog di sonn am parti war a mën a dem fa ma war a mën a dem ay nit di ma téye di ma téye benn place soit ngeen def li ma leen di wax mbaa ma dem jëli yeneen nit teg leen fi jox leen moyen yi ma leen war a jox ñu dugg ci biir dëkk bi politique ma c'est fini temps yi passé lu tax léegi bi ñu demee fii temps yi di di di tertu président Macky Sall am na waa joo xam ne dafa toog ne ma yow monsieur le ministre yow sa gone yi ni nga leen formé léegi doy na war de da ngeen a dem fekk leen ci seen manin di def seen i pancarte di taxaw di siffler taxaw seen kanam wan leen li ngeen di def ba ngeen ëmb li ëmb da ngeen leen a ëmb fii ëmb leen Kébémer ëmb leen Louga yeneen boy yi di ko def Touba APD mi ngi toog fi ne nii Dakar ñun dong ñoo fa nekk collation boo xam ne bii bi président Macky Sall demee fële def congrès ba pare ñun kenn ñoo fi def congrès jigéen ñi def congrès xale yi def congrès cadre yi ba pare du dugg ci biir dëkk bi di campagne fu ñu toll ñu duñu gis ñu ànd ak ay xale yu farlu yoo xam ni foo waxee pancarte ñu jóg ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi ci débat yi fu ñu tasanteeg yeneen gars yi lem leen toog seen kaw alors loolu ñoo ngi soog a commencé di politique il faut ngeen continuer ko ci biir dëkk bii te xoolal nëbbuma ko kenn le 24 février incha allah dañuy fal président Macky Sall mais buñ paree xam ngeen lan moo ci des nangu commune bi commune bi ci boppam ngeen di nangu te pour ngeen nangu ko képp ku ngeen gis ci dëkk bi te muy nit ku baax di ko nangu ànd ak yéen ànd leen ak moom yaatal leen pour ngeen nangu commune bi ci loxo yee mu nekk parce que loxo yee mu nekk man doyuñu ma ca erreur ngeen def erreur ngeen defoon ba perte ko mais xam ngeen ne dëkk bii ak li ñu fi def am na benn taxawaay ak doxin boo xam ne bu ngeen ko fi doxee waa dëkk bi dañu wate pour yéen mais su ngeen toogee seeni kër seetiwu leen nit ñi ku ngeen romb du ngeen ko wax dara nit ñi dañuy maanu seen bopp ci yéen di leen toog di leen xool il faut ngeen dem di waxtaan ak nit ñi di leen convaincre parce que man dañuy wax xale yi xale yii nga xam ne yii ngeen di gis nii xale yi nekk daarumu si nii mais man xale yi nekk daaru musi mun bañ parce que moom ba may jógee Darou Moussi en 1978 di liggéey Dakar ñoom kenn ci ñoom judduwu ci woon ku judduwul ba may ba may fiy nekk judduwoo bi nga juddoo fekkuma fi mosoo dugg sama kër mosoo toog wax ak man noo ma mën a bañee munoo ma bañ nit ki ngay bañ da ngay toog moom mais xale yooyu su ngeen demul ci ñoom dañ naan ñii kat faalewuñ ñu ñii boolewuñu seen koñ aussi bu ngeen fa nekkalee parti bi. di dugg ci du ngeen dugg ci biir kër yi di maslaa ak nit ñi ak di leen wax dañ naan nitu Thierno Lo yii faale wuñu kenn kon nañ leen bàyyi toog fi ñuy toog loolu mooy seen problème kuy politique il faut ngay dugg ci biir këru nit ñi kuy politique il faut ñaari bis yi foo ci dégg nga dox ko muy bisu naqar ak bisu bëgte ku ko ci boo ca demee rek fu yëg na xam nga ni yëg nga ko mais nekk ci koñ jox maa fi nekkal nu Lo bu dëj amee doo dem bu ngénte amee doo dem boo rombee nit ñi mbedd mi doo leen nuyu yow liggéeyaloo Thierno Lo dangeen ko war a ba nga nekk fii tam ne maire secteur la yow naka ngay toogee di wax ne maire secteur la te ba ñu wootee yàq sa musóoru kese yaay ñëw toog waaw maire secteur ay nit ngay yor cent personnes mbaa cinquante personnes mais ne maire secteur la bu ñu la waxee ñëwal yow doo ngay ñëw kooku doo meeru secteur militante nga meeru secteur day yor mbooloo mu nekk ci gannaawam bu ñu nee léegi ñañ def kii meeting nga ne jox leen ma oto ma duy samay nit indi bu nee dañuy def réunion nga duj am xam ngeen yéen ñii fu ngeen fi nekkee vingt maire de secteur bu ko nekk indi woon ca secteur am juróomi nit xaju leen fii nañ waxante dëkk ku mënta nekkub secteur neer yoruma secteur neen man militante la ñoo xam ne yow doo nga fi nekk ku yor mbooloo nga di secteur laa yor bu ñu la laajee nga indi say nit wante toog jox wax meeru secteur laa pour que lu ñuy séddale nga man meeru secteur laa ci yoroo ñaari nit yoo mën a indi ci réunion loolu dama bëgg mu dakk fi après léegi pour campagne bi ñii danañ danañ danañ ñëw pour wax leen naka la ñuy defee campagne bi ak fan yi la ñuy jaar visite proximité yeeg yëpp équipe bi bureau bi ñu fi bàyyi def naa réunion ak ñoom ba pare li jëm ci campagne bi yépp jox naa leen ko dina ñëw seet programme bi naka lañ koy defee ci visite de proximité yi ngeen def ko ak ñoom pour que ñu jëm a gagné incha allah rabi le 24 février 2019 merci beaucoup. ca dëgg dëgg Thierno ku ngeen bëgg ku ngeen àndal.